képp koo xam ne wax nga lii yàlla dana la xool ba tab yërmande boo xam ne dootu la mbugalati mukk képp koo xam ne wax nga lii ba tey jaaminu mu yi nee na sa bàkkaar yi day wadd ci yow comme ni xobi garab yu waw bu ko ngelaw duggee na muy waddee bokk na ci wax ji yonent bi waxoon Eh, ben waaye ñëw tawat ko ne ko dama bari bàkkaar de bay joy, yonentu bi ne ko waxal li allahumma maghfiratuka awsa min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali waaje wax ko ben mu ne ko waxat ko mu ne ko ñaar mu waxat ko mu ñett mu ne ko doyna sa wel jegal na la ko ñaan gu cheikh na tijaani fonkon la ak suñ mag ñi allahuma magfiratuka min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali lu mu gàtt-gàtt nga jàng ko ñetti yoon suba gi lu mu gàtt-gàtt nga jàng ko ñetti yoon ci ngoon gi soo mënee def lu ko ëpp nag mu gën a baaxati lu baax a baax la gàtt na lool yomb na lool allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min hamali ku ko wax rek yàlla jégal sa bàkkaar yi loolu kon baax na Bullfate abone, bullfate abone, bullfate abone, bullfate abone.